astaxfirullah dafay raxas tilim tilim dafay raxas bàkkaar dafay indi xéewal dafay jubal xol dafay naatal xol ci yàlla laa ilaha illa dafay waral jaam bi yàlla di ko gën di xëcc ci boppam di ko gën di jegeel boppam ba doon xaritam kon lii yëpp ku nekk ci ñun soxla na ko nañ koy saxoo loolu nag bonisu koor gi la ci waxtaan wi xanaa di gërëm beneen yoon mboolem ñi nga xam ne rek ci seen rafet ak kàndoo yeneen ko ànd ak ñun ci boroom xam-xam yi ñuy déglu ak di ñu seetaan ci mbokki taalibe yi ci daara ji ci mbokk yi ci kër yi yépp muy kër diini ji dégg ca Touba ca Tiwaawoon ca Njaasaan ci dégg Yoof dégg ci Canaba ca Paal ca Daaru Salaam ca Bushra dégg nga ñëw ba ci nag lew na ña ñëw ba madinatu Cheikh Ibrahima Niass di nuyu bu baax mboolem xalif généraux yi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen taxawaay uuf ki ngeen uuf njaboot gi yàlla na ngeen ko yàggee ci anam ak wér ak wérle njaboot gi it yàlla nañ nekk njaboot gu neex a ilif njaboot gu neex a ommat ba li ngeen bëgg ci njaboot gi yàlla def ko li bëggu leen mukk ci njaboot gi lu mooy lu yàlla bëgg ak yonentam kon yàlla na ko yàlla def ñu ngi dellu beneen yoon di gërëm itam ki nga xam ne mooy mbokk mu baax di Mouhamed Muntaka nga xam ne it macha allah waxtu yu dégg nga eh, eh, jariñu ci yàlla jotee mu ne kaay ñu jariñu ci yàlla loolu ku la koy def mooy dafa bëgg rek yow itam nga bokk ca ña yàlla di teral yàlla na yàlla boole ñu teraanga bi ñun ñëpp. ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi Omar ak mbooleem ñi mu ko seqat yàlla na yàlla gërëm leen lu ñu leen gërëm gërëm gërëmande yàlla gën a fort. yal na yàlla gërëm leen yal na yàlla yokk leen ci zaahir ak ci baatin yàlla ubbil leen te ubbee leen buntu wërsëg yi xéewal yi defal ñu ko ñun ñëpp lépp luy noon ak pexeb noon musiba balaa cat la mi ñaam deegu ñaaw deewu mbetteel yal na yàlla boole ñu ci musal yal na yàlla may ñu ay soxna yu baax te soxna yu baax yooyu yal na yàlla jubale ñoo ñoom itam bu seytaane xaj suñ digg ak ñoom ndax àndoo gënta neex ki bàyyi léppam def la ngay léppam muy ku góor ki muy ku jigéen ki ku ci nekk bàyyi na léppam tànn la yow ngay léppam kon nag yàlla bu seytaane xaj ci diggante bi lépp lu ñu yàlla may ci njaboot yu góor ak yu jigéen yàlla nañ barkeel yàlla na yàlla defal ñu barke bañ xam ne barkee ngi nii ci ñun te yàlla bum ñu sori lépp lu ñu yàlla defal ci yiw yàlla nañ ko doxaale ba àllaaxira fekk fa yiw yi ëpp yim ñu joxoon ci àdduna te ñu jëriñoo ko yàlla nañu yàlla may rabbana atina wa fil axirati xasanatan wa qina adaban naar mbokk yi ñu ngi kon boobu teg foofu suñu baaraam di gërëm ñu ngi yegsi ci bés bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy séentu muy korite yàlla na yàlla defal ñu kor gu yàlla gërëm te nangu ko liñ ci or liñ ci jéem liñ ci naafila liñ ci jéem yépp ci jaamu yàlla yàlla na yàlla gërëm ko te mu may ñu ñu fekkee xaaj ak déwén te ñu fekkee ko ci anam ak wér ak feebar bi fi doon lëmbee yàlla na fi jeex ba faw buñ ko déggati bu mu fi ñi jiitu yàlla na yàlla yërëm leen yàlla na yàlla xaaree leen aljanna jéggal leen seeni bàkkaar ñu fi des yàlla na yàlla wéral ñu te ñu gudd fan gu ànd ak wér ak barke bi jaahi xeyril bariyati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon nag wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokk Mouhamed Kouta la woon ci kàddu gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu